saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa coowal CNG président Alioune Sarr kan moo koy remplacer le 2 novembre ak Matar Ba kan la fiy teg njiital CNG kan lay nekk ci guddi yi ñu dëgmal ku muy teelut ci làmb gisuma ko ku nekk ci làmb ji guddi yi yaa ngi nàmm sam xel di ko sànni naan kii la war a doon wala kële Mouhamed Ndao Tyson daanañ ko tudd waaye léegi xel yi gën nañoo tàmb ci moom Mouhamed Ndao Tyson daanañ ko tudd waaye léegi xel yi gën nañoo tàbbi ca moom gannaaw ba mu amee audience ak le ministre Matar Ba ba mu génnee xel yépp dañoo leen laaj seen xalaat wala dafa am yaakaar ci ñoom kenn xamagul ba muy dalal Mohamed Ndao Tyson ak Doudou la tukkee ca ndaje moomeeg lañ fay waxtaane loolee ump na nit ñi ba léegi waaye la am ba des mooy wax ja wax ja mënta weesu naka la ñuy def ba doxal làmb ca audience yooyu nag Kéba Kandé da caa ne tonn ne mënuñoo doxal làmb ak ay màgget on ne peut pas faire du neuf ji mënuñoo ne dañu koy yeesal ba noppi jël ay màgget di leen ko dénk boo bëggee mu yees da ngay jël ay gone ñu ndaw dénk leen ko lu ko mooy bu lamb ji yàqoo yow mi dénkaane yaa ko yàq bu dee CNG bi fi jiite lamb ji diirub ñaar fukki ak lu teg démb la ñu def seen réunion bu mujj réunion tàggatoo la ñu def démb joxantee loxo seen ndaje ma ak seen waxtaan wa démb la journal ba xamle mooy ku ko fekkee woon da ngay gis ne ñii de amuñu yaakaar ngir ñu tegaat leen ci bile boppam CNG ñoom danoo njort ne seen ànd ba foofee na tàkk kenn waxatu ko moom la doon king moom mi fi taxawal revanche Eumeu Sène ak Bordeaux la mu xamle mooy Gris Bordeaux daf maa bett waaye trahiruma ñu laaj ko ndax da tëggaat Gris Bordeaux mu ne loolee nag xamaguma ci lu bari li ci sunu kanam rawu li bët sunu avenir yàlla rekk xam bu ñu jàllee ca Lac de mi doog a signé combat ak Eumeu journal ba xam le mooy titre roi des arènes bi képp ko soxal moom Lac de loo ko wax lu dul roi des waxoo ko dara Eumeu mi nekk ci kanamam jaaruwaay la ngir mu mën a yegg suuf ci ñetteelu combat bi mbir ma nar a leere ku nekk xam sa morom fa nuy jeexale mooy ca Balla Gaye 2 ma journal ba jàpp ne benn défi képp ko des ngir mu relever ko ci ngi ci ay tànkam le journal ba xamle foofee mooy Balla am na ñaar fukk ak benn maanaam 21 moo ko desee ñeenti ndam bu ko amaatee daal di tolloo leeg Moustapha bu amee lu ko romb mooy romb na Moustapha Gueye jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu bi ñu leen jox